rek chers amis internautes de la Sen Série TV maa ngi leen di nuyu leen remercier bu baax a baax si ni ngeen di yàndee saa su ak sunu ay programme seen rubrique décortique dafa ñëwaat ci série bete Bété épisode 30 dañu koy door ak Juma Thiam moom nag dafa triste parce que mbëggeel moom moo ko sonal ndax ku ne xam na ni euh, nit ki ngay bëgganteel même bu fekkee ni que moom moo la tooñ aussi euh, soo ko bàyyee di nga am lu la metti ba tax na tey bàyyi bi mu bàyyi Kheucha nekk na loo xam ne lu ko metti la ba tax na yaayam remarqué na ko ndax ku ne xam na xolu yaay ci doom lépp loo xam ne affecté na doom rek yaay ji da koy yëg ba tax na Daba Thiam ñëw di waxtaan ak moom waaye bi mu xamee problème bi conseillé na ko que ni rek mu euh, bañ a topp fiirange wala nag bañ a topp ay euh, loo xam ni dara leeru ko ci ndax gis euh, xusa ànd ak jigéen rek warul tax mu jàpp ni gelam la ba tax mu bëgg koo bàyyi te nag warul topp piège du ñàkk ci am sinon rek dina ko dugal ci loxoy alkaali bam rek daal di ñàkk amour bi nga xam ni moom la nekk di dund te moom daba caam li mu dund bëggul benn yoon juma caam dund ko waaye juma caam su moytuwul maamam dina ko dund parce que juma caam moom boo seetloo dara loo xam ni rek mitti na maamam yaakaar naa ne euh, nit lépp loo xam ne yaa ngi koy topp da ngay topp loo xam ni moom moo mun a wéy nag boo nekkee ak nit pour plaisiru keneen yow xooloo sa plaisiru bopp te sëy nekk na loo xam ne du benn fan du ñaari fan boo ci duggee sa maam jooju du la ca fekk kon nag yaakaar naa moom mi nga xam ne moo di juma jaam moo war a xam boppam xam bu baax a baax fi muy teg tànkam ñu jàll ci Paco euh, moom nag wane na ni dafa heureuse jamono ji ak sosa euh, ndax nag ñu ngi dund seen mbëggeel carrément waaye dafa dal ci kaw xësa bi mu yëgee xësa li mu bëggoon a def juma caam muy loo xam ne nag jàpp na ni góor boo bëggee jigéen waroo koo moom noonu surtout que jigéen boo xam ne danga ko bëgg a def soxna te nag réaction Juma Caam wane na ni Juma Caam jigéen bu baax la te nag ko rëccee soxnaam rëcc ko euh, waaye nag xusaa moom mel na ni moom moo ko jàpp ba léegi te it nag xamul lu mu bëgg euh, benn yoon waaye nag moom Paco mel na ni li ñu naan euh, ay nit bu ñuy ànd faw faw am ko tane sa morom heureusement ba moom Paco fi muy xalaatee fu kawe la te it xam na ni jigéen bu baax am na rek noo xam ne bu ko réagir da nga koy xam ñu jàll ci Marème Sall moom nag nag gis nañ ni euh, euh, li muy euh, ñaxtu dafa bëri li koy métti dafa bëri te nag à chaque fois rek day jàpp ni nit ñi ñoo nekk contre moom loo ko c'est le contraire waaye heureusement ba Bassine wane na ni xarit dëgg la ndax xarit dëgg mooy koo xam ni day wax moromam dëgg te du ko jay te gis nañ ni dafa taxaw ak Marème Sall wax ko dëgg te jayu ko benn yoon waaye itam mu conseillé ko mu dem jëli nogay ndax xam na ni si jëliwul nogay problème moom mi nga xam ni moo di Marème Sall moo si am lu lu muy ñàkk moo ciy perdre waaye nag du ñeneen ba tax na moom mi nga xam ni moo di Marème Sall nangoo naa rek daal di topp li nga xam ne moom la ko wax ndax yaakaar naa lum tàng-tàng wala nag euh, lum mënti mel rek doful te yéen nag xam na bu baax a baax buñ ko waxee dëgg ñu jàll ci umu xayri moom nag li ko dal kër euh, ma xuja daf koo métti ba tax na mu woo alkaali li ak moom waaye alkaali li mu ko digal mooy mu ma xuja mi ndeyi mbili gi te wax ak moom te bañ ki nga xam ni moo di ami mbay waaye gis nañ ni itam ki nga xam ni moo di umu xayri bi mu waxee alkaali mbirum vidéo bi que ni maam joor moo ko jël dafa mer te yéen nag dal ci kaw maam joor xas ko ba mu ndax jàpp maam Joob nit ku baax parce que moom euh, alkaali keroog euh, jour boobu wax wax wax na ak moom wax yoo xam ni kon moom maam Joob waroon na xam ni fa xew kenn waru ko woon xam ñu jàll ci Jaynaba moom nag muy continuer rek mu conseillé ko hôpital ngir ñuy def test de grossesse waaye Juma Caam jàpp na ni loolu su amee problème dina amaat ci kër gi te it maam bu du xam nan lay def ndax maam bu euh, bu sañoon rek Jaynaba Taal sëyam day tas te nag doom du judd ci sëy boobu jàll ci wu gannaaw bi mu waxee ak alkaali woona ma xujja itam ngir waxtaan moom wax ko lépp li nga xam ni moom moo am waaye nag gis nañ ni ma xujja daf cee na ni Ami Mbaye li mu de respect la te it moom ma xujja la ñu honoré wul la ñu joxul cër moo tax nag ñuy doxalee noonu waaye gis nañ ni bëgg na taxaw temm nag ngir régler lépp nag ngir daal di jël ay responsabilité am ñu jàll ci ki nga xam ni euh, moo di euh, Nogay moom nag euh, daa bëgg rek utiwaat liggéey parce que ku ne xam na nit bu tàmmee liggéey dootul bëgg di toog day bëgg fu mu toll rek di liggéey waaye njaga ci Thiam moom gis nañ ni ba commencé ko estimer comme ni mu euh, mel si ci Juma Thiam noonu la bëgg mel ci Nogay ba tax na euh, mu ne ko koo bëgg sax inscrire ko mu daal di jàng comme fi Juma Thiam di jàngee loolu nag day wane rek ni diggante Nogay ak Juma Thiam am na lu ci nekk ndax seulement nuróo nañu waaye Njaga Thiam bi nga xam ni kenn rek la bëggoon ci àdduna muy Juma Thiam su demee ba am ay sentiment ci Nogay bay wax sax pour mu boole ko ak Juma Thiam ci benn école loolu day wane ni yaa quelque chose ndax ku ne xam na ni euh, deret du fen te fekkee dañoo bokk loolu rek mën na nekk motif bi ba tax na moom moom mi nga xam ni moo di Njaga Caam sax bëgg dem visiter rendre visite ay mbokk ñi nga xam ni ñoo di euh, nogay ndax jàpp na ni nogay niñ ko éduquer rek dafa baax te nag bëgg na xam ay waajuram ñu jàll si Njaga Caam moom nag gis nañ ne ni muy favoriser juma dafa ëpp trop ba ci sax euh, boolu añukaay bi gis nañ ne lépp lu fa baax dafa bëgg rek juma lekk ko te nag bu mu ji may kenn loolu nag di wane ni euh, ni mel si njuma caam ëpp na trop ñu jàll ci maamu Amina moom nag mi ngi koy conseiller ngir ki nga xam ni moo di sow daal di koy ñëw takk si ndax moom mi nga xam ni euh, moo di euh, grand mère jàpp na ni lu baax boo koy def da nga ciy gaaw ñu jàll ci maxu jëpp moom nag dafa taaj ay jabaram di Fatim Thiam ak euh, Ami Mbaye xas leen bañ ràpp yamale leen waaye recadré leen te xamal neen di nag su suñ ko mayatul jàmm këram dina ko uti feneen ñu jàll ci Marème Sall Marème Sall nag moom ñëw na récupérer si nogay waaye nag Daba Thiam moom jàppoon na ni Marème Sall osé wul daal di dugg seen kër waaye fi muy waxee ak fi Marème Sall di ñëwee rek si la génnee ñu daal di daje si muy tiit a dugg euh, a ngi dégg muy loo xam ni métti na euh, ba tax na ndogay mi nga xam ni moom moo tax problème boobu yëpp am daal di décider nag topp ko ndax xam na ni su toppul problème bi du jeex te kon day tooñ mbokkenteendoo di foofu la yem ci épisode 30 bu série Bété Bété ma jox leen dig daje ci beneen épisode waaye laataa boobu woy leen di abonné ci seen série TV te bu leen fàtte ba si cloche de notification bi ngeen di jot suñu vidéo yi à temps réel jërë ngeen jëf